novembre bi ñu weesu euh, ci la ñu doon fàttaliku génnuk àdduna Macodou Ndiaye nekkoon questeur assemblée nationale nekkoon itam maire ca Ndar euh, ma am mbégte tey dalal euh, su Diallo nekk PCA bu Sonacos ñu ngi lay nuyu sëñ bi Diallo am mbégte dalal la ci Demb ak Tay voilà jërëjëf maa ngi lay nuyu di la gërëm Fatou ci invitation bi di am kontaan trop tontu ci li laaj Eh, ci ci ndar parce que ndar mooy suñu dëkku cosaan fa la ñu juddoo fa la ñu baaxee et puis suñuy waajur fa la ñu fa ñu fa leen denc yal na yàlla yërëm leen ak mbooleem ñu tëdd foofu ci ndar ak euh, mboolem jullit donc euh, dinaa ci sawar lool et surtout que euh, daal daf ma concerné ci ci ci fànn yu bari daal parce que déjà euh, ma maire bi ngay wax euh, jëm si yàlla ji Makodou Ndiaye ñun booba ay xale lañu parce que 1963 euh, defe naa ci la nekkoon maire et defe na nu yàggul yà yàggul tuuti aussi ci la gaañu. moom mu nekkoon un Faticois ñëwoon Ndar yàgg fa doon fa jàngale. nekkoon mbokk mbokk Senghor. booba doomu Ndar yi gannaaw. maître Babacar Seye parce que maître Babacar Seye nekk na maire de Saint-Louis def naa lu ëpp presque dix ans ou quinze ans yàgg nañu xëccoo doomu Ndar yàgg na xëccoo pour am maire yi bi Senghor demee ba waa partem jaaxal ko finalement ci la coaché Makodou ba Makodou nekk maire Saint-Louis et ci foofu sax Makodou dafa am lu mu tax ak bokk ak man maanaam lu ñu lu ñu lëkkale du bokk sax mais lu ñu lëkkale parce que suma tànt bi nga xam ne mooy suma rakku yaay di nday Kombay Ñang Adja Ndey Kombay Ñang eh, moo doon jabaram bu ndaw waa mi ngi ko takk d'ailleurs jamono yooyu boobu daanaka eh, xale bu ndaw la ñu jot a am benn doom ñu koy wax Adja Njaay donc ma ko du quelque part suma biir kër la dëkk ñun bi ñu nekk xale d'ailleurs ñu ngi janoog moom ak eh, dees bu ñuul bi mu daan amee Euh, bu assemblée nationale bi boobu moo doon questeur assemblée nationale donc euh, je crois que loolu euh, dafay indi ci man ay ay fàttaliku yu yoo xam ni yu xaw a tiis la tuuti waaye aussi truc parce que ma Makodou Ndiaye boobu d'ailleurs moo jur Ndeye Ndiaye Ndeye njaay moom mooy moo jur Cheikh Amar mm. voilà donc am na aussi yeneen doom yu nekkoon fii à Dakar Euh, am na ci kenn sax d'ailleurs koo xam ne dama fàtte turam qui était sénateur et doon xaritu Ablaye Wade bu baax a baax donc euh, vraiment famille bu mag la. donc wane ne xëccoo ci ndar moom yàgg na fa voilà voilà <laughs> loolu la ñuy waxtaanee tey waaye lu ko jiitu dañuy dem ci politique ak ndar ku ne xam ne ndar fa la colon yi ñu nootoon nekkoon kon ñoom teel nañu leen nàmpatal ci wàllu politique ci wàllu administration ak yu ni demee est-ce que mun nga ñu dikkal ci ndar ak politique euh, place bi mu ci mës am waaw parce que xam nga tubaab bi bi mu fi ñëwee euh, dafa defoon li ñuy wax le système des des quatre communes maanaam ñeenti dëkk yi nga xam ni daal euh, dëkku taax yi nga xam ni muy Ndar muy Rufisque muy Gorée et puis di Dakar ñooñu ñoom lañ doon wax les citoyens maanaam ñi nga xam ni dañ leen teg comme ñuy ay citoyens français ñu leen di traité ba jamono récemment euh, ba ci début année soixante yi boo juddoo waa Ndar boo demaan Nantes daa fa fekk sa kayitu juddu donc ñun ñi nga xam ne judd nañu un peu avant l'indépendance tey jii euh, xaw ma ndax soppeeku na wala déet waaye bu ñu demee maire yi Nantes mën nañ fa laaj ñu kayitu juddu voilà donc. Euh, ay français. waaw maanaam mooy espèce politique assimilation. jël quatre communes ñu def leen ay citoyens ñi ci des ñu considère leen comme ay indigènes. indigènes donc moo loolu moo moo amoon et ndar nag euh, gënoon ci ràññeeku parce que fi ñu jëkk de daanaka def ay wote et Sénégalais yi nekk fa e cahier de doléances yi en 1789 et defe naa ne waa Ndar euh, daje woon nañu pour déposer cahier de doléances yi. donc euh, maire yi ñu jëkk sos ndar ci la bokk ay tubaab yore woon ko waaye nag am na ay sénégalais yu ko jotoon yore ñu mel ne Télémaque Sow ñooñu kenn du leen fàtte amoon na aussi ñi nga xam ni ñi ci ëpp léeg-léeg Ngalandou Diouf nekkoon na maire Ndar defe naa sax Blaise Diagne à un moment euh, nekkoon na maire Ndar ak euh, ñeneen ñi nga xam ni léeg ay métis lañ doon Euh, jotoon ci ràññeeku am na aussi beneen doomu Ndar bu nga xam ne nekkoon euh, maire bu ràññeeku ci euh, jamono depuis année mille neuf cent presque année année cinquante yi mooy maître Babacar Seye et maître Babacar boobu sax d'ailleurs sama benn nijaay Abdoul Aziz Niang nga xam ne mooy suma magu yaay moom la doon xëccool maire bi ba à l'époque maître Babacar Seye gañe ko donc ci la maître Babacar Sèye nekkee maire defe naa daal si bu ma trompé wul defe naa 1952 ba defe naa presque ay 62 63 donc moom Makoddu ci daanaka ci moom la topp. donc kooku kilifa gu mag la woon avocat la woon. et nekkoon doomu dar bu mag et maa ngi fàttali d'ailleurs ci bi ñu transféré capital bi moom moo dirigé woon les jeunesses de Saint-Louis. et moom sax d'ailleurs euh, defoon nañu ay manifestations. physique ba moom ñi ñi ñu jàppoon ci la bokkoon en tant que maire donc euh, loolu yàgg na fa ensuite ci wàllu taarix aussi ndar euh, ñu ngi fàttaliku en 1963 euh, defe naa élection yu metti fala amoon parce que ñu bari dañu ne woon en 1963 PAI bu Majmout parce que Majmout aussi Saint-Louisien la et Majmout moom la ñu présenté woon comme candidat à la maire de Saint-Louis et booba presque Saint-Louis toute la jeunesse ak jigéen ñi ñi ci ëpp ay ay militant PAI la ñu woon et donc ci la amoon kii ci la ñu jëkk jàpp ñoom Majmout voilà donc euh, daal euh, mën na ne élection yi dañ ko xaw jaxase e mu indi loolu aussi am na fa ci wàllu taarix euh, xëccoo bi yàgg na fa ñun ñu ngi fàttaliku bi ñu nekkee xale diggante Masseck Ndiaye mooy papa Ousmane Masseck Ndiaye ak fa Bekkaay soow Euh, boobu ñun ñu ngi ay école primaire la ñuy nekk wala yooy dans les années peut-être euh, entre soixante euh, soixante cinq ñu doog a école jàpp ay jusqu'au milieu des années soixante dix daanaka ñooñu seen xëccoo ñu ngi koy fàttaliku xëcco André Guillabert ak Momar Souran ku nekk mi ngi koy fàttaliku xëcco diggante Momar Souran ak euh, Ablaye Diaw Chimère ku nekk mi ngi koy fàttaliku diggante Ablaye Diaw Chimère ak Tidiane la ku nekk mi ngi koy fàttaliku et euh, aussi diggante euh, ba bi Ousmane Masseck Ndiaye day ñëw comme euh, maire Saint-Louis donc gagné Saint-Louis au titre du du donc euh, xëccoo yàgg na fa diggante ànd dekkal Ndar ak ma Masseck yéen ngi di ko ànd dekkal Ndar muy ñoom Ousmane Ngom dirigé woon ko ñoom Baraya nekk de l'autre côté et ñoom ñoo ñoo doon xëcco ak Ousmane Masek defe naa ba ñu defe naa toog nañu ñaar ba ñetti weer sax ay recours yu bare en justice ba ñu mujj déclaré que Ousmane Masek mooy moo gañ waa donc loolu xaw na fa yàgg et boo tebee loolu euh, élection disputée diggante les premières alternances à partir en 2009 maa ngi fàttaliku booba ci euh, tête de liste coalition Sopi la bokkoon avec Ousmane Masek Ousmane Masek ñu dafa doon liste coalition Sopi bi bi ñu gagné en 2009 et après ci la ñu bi 2012 euh, deuxième alternance bi amee ci la euh, diggantement Mansour Faye ak Baraya ku nekk mi ngi koy fàttaliku et surtout élection 2014 yi waaw nga xam ni boobu nag euh, quasiment boobu dañ jëkk déclaré ni Baraya moo gagné ba mujj gi après mu am euh, yu ca xew ba mujj gi euh, Mansour Faye ca la toogee. Mm-hmm. tey jii aussi dégg nga élection yi di ñëw diggante ñi ko seq Mansour Faye mooy maire maire le maire sortant Ahmed Fall Baraya Mary Teuw Niane nga xam ne ci APR la bokk ak benn Bokk Yaakaar def listu boppam ak. le jeune ak euh, Abba Talib Gueye Ablaye Sène et cetera bon ku ma ci fàtte na ma na ma jéggal waaye euh, defe naa ni loolu yàgg na fa et puis dafa nekk dëkku taarix dëkk bu ràññeeku boo xam ni daanaka tey jii boo demee au plan international euh, en tout cas ñi nga xam ne xawoon nañu am yenn at yi commune Saint-Louis la ñu gënoon xam commune Dakar voilà voilà dafa am notoriété voilà voilà dafa am lu mu représenté et c'est une ville très très symbolique ba nga xam ne léeg-léeg souvent bu Saint-Louis basculé rek dafa am léeg lu muy lu muy lu muy muy muy lu muy lu muy junj ci ci ëllëg. ci wàllu politique. ci élection ci ci non seulement ci élection euh, locale mais aussi même ci njiitu njiit ci élection nga xam ni jiitu réew mi lañ ci lañ ciy désigné. lan moo def particularité boobu ci ndar région yi bari na ci Sénégal mais lu tax ndar euh, am booba dayo Ah, non kooku nag xëy na xëy na baatinu politique la xam moom xam nga am na ci yoo xam ni. boo ko bëggee expliquer sax da ngay dugg ci lu sa yoon <laughs> nekkul. waaw mais daal am na euh, euh, mag ñi dañ daan def takk. Mm. maanaam boo gisee mbir am amati. waaw eh, eh, da nga naan euh, bu amee amati. Mm. Eh, da ngay def takk. waaw dafa am lu muy tekki. Mm. xëy na mën na nekk dëgg mën na bañ ñàkk dëgg. Mm-hmm. waaye gis nañ ni en tout cas Ablaye Wade. Euh, victoire Benno bi en 2009 à Saint-Louis. Mm. moo après pré moo moo xaw a mel na lu nodd. Mm. Euh, changement bi war bi am 2012. d'accord waaw gis nañu aussi que ci en tout cas euh, am na daal nu muy lu mu lu nga xam ni daal espèce su danaka danaka danaka di annoncé donc daal dëkk bu symbolique la. est-ce que ci xayma ñuy voté la wala. Euh, ci lan déedéet non li ma la wax. bu kay mënu ko expliquer ko firi. waaye daal takk la bu ñu def. waaw hmm. ah, takk la bu ñu def voilà voilà voilà ci ndar donc am na nga xam daal euh, jar na bàyyi xel. Hmm. Euh, ci daal xëy na. dama koy wax baatinu élection xam nga baatin kenn mënu ko firi. waaw waaw loolu àqul nëbbu la. <laughs> voilà <laughs> loolu la yàgg naa am léegi bu ñu ñëwee ci tey euh, enjeu wu Saint-Louis boo nu ko doon euh, tey xëy na firil enjeu bi mu am gis nañu peut-être ñu bari ci opposition bi euh, ñu nga fay. xëy na dem jéem a def ay jéego Cheikh Bamba Dièye nekkoon na fa gis nañu bi ñu tegee keneen euh, coow li mu jur ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni marito ñaan mi nga tudd léegi mi ngi bokk ci majorité bi def liste boppam mu mel ni ndar euh, ku ca ne yaa ngi koy bëgg a jot lan mooy enjeu wu ndar tey ci wàllu politique. waaw foofu moom dama la kay kii parce que euh, xaajaloo ci élection yàgg na ci doom ndar. ba nga xam ni expliqué naa la xam nga affaire Macodou Ndiaye ni mu ñëwee ndar. Mm. nekkoon un Fatickwa ñëwoon daal di jàngale. Senghor ay ñoñam dañu koo jaaxaloon nit ñi nit eh, ñi eh, doomu ndar yi jàmm jàmmarloo seen diggante ba mënuñ juboo ba mujj gi Senghor mujj imposé Makodou Ndiaye mu nekk. lan lan moo waral loolu. Ah, waaw ñàkk xam nga eh, doomu ndar ku ci nekk dafay wax sa bopp waaye xam nga doomu ndar yéen yàlla baal ci laa bokk. Mm-hmm. waaye nag dañoo xaw a yëg seen bopp. xaw a bëgg seen bopp et euh, nangu ci la ku leen jiite daal. dafa waaw ñi ñi bëgg jiite dañuy bare. waaw ñi bëgg jiite dañuy bare te bu ñi bëgg ñu bëgg jiite bare et jàmmarloo bare bu yàggee mu néewal leen doole. alors que yeneen dëkk yi boo fa demee presque day am léeg-léeg consensus bu fort ci benn nit. léeg nag ndar bu xasee ba trouver ki nga xam ne xëy na mën na nekk nitu consensus. léeg-léeg dana ko téye lu yàgg. waaw kooku am par exemple le cas de maître Babacar Seye euh, nekk na presque maire pendant truc lu mat presque quinze ans ab André Guillabert yàgg na fa lool macha allah mm. Ablaye Diop Chimère def na fa lu ëpp dix ans yàgg na fa lool aussi euh, et euh, mais balaa ñuy ñëw dafay xaw a dana xaw dana xaw a donc daal kujje dafa xaw bare ci doomu Ndar mm-hmm. ñi fa yàgg nii lan moo nekkoon seen particularité non ñi fa yàgg de xam naa ni euh, xam nga dëkk yooyu moom boo ko euh, euh, da ngay d'abord seen particularité moo doon sociale xam nga maire bu social da ngay naqadi déjjati waaw te nit ñi ba léegi li ñuy teg maire yi daanaka maire yi ci ay liñ ko sant pour mu liggéey ko bokk ci joxe liggéey du li ñu sos maire sas maire yi defaraat économie dëkk du li ñu sas maire yi et euh, nam tuddee ci euh, defar yenn infrastructure yi nangam nangam du ci wàllu sos parce que maire yi ay moyen barewul li ñu ko sant daal mooy dëkk bi na set dëkk bi na leer dëkk bi na ñu fexe ba li ñuy wax assainissement mu am ko leneen li aussi na am euh, xëy na tuuti sécurité ak euh, yeneen domaine annexe yi mooy euh, école primaire yeeg CM yeeg yooyu ngay def entretien beeg di leen jàppale ak yu mel noonu ak yenn district sanitaire yi un peu nga yore ko xam nga déjà loolu rek boo ko boolee maintenant ak budget maire yi daanaka sax du ci xaj parce que budget yi maire yi ñu gis yëpp eh, li ci ëpp seen budget daanaka boo génnee salaire yi tuuti bi ci des ci fonctionnement lay dem investissement li ci ëpp du kii ba nga xam ni fa ëpp ci investissement di daanaka état bi moo koy def et maire yi bu bu ñu fàtte aussi que loi bi démembrement de l' état la ko tuddee mm-hmm. maanaam état central. moo jékki-jékki réaménager boppam. Mm-hmm. am ay pàcc yu mu def yoo xam ni ni daal xëy na. anbalit setal dëkk ak assainir dëkk daanaka état central euh, bu demee ba ca kanam doo yooyu daf ko war a euh, délégué euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ñu liggéey ko. mooy compétence transférée compétence transférée yi mais yi ci ëpp solo mooy daanaka ñett wala ñeent yooyu na dëkk bi set na dëkk bi leer na dëkk bi assaini na dëkk bi wóor maanaam na am sécurité. ba nga xam ne danañ def police municipale ak ak yu mel noonu. léegi maire yi rax ci ci bokkul wala askan wi sos leen. déedéet mais euh, xam nga nag àddina day dox. Hmm. ba nga xam ne nit ñi di ko moo tax ñi nga xam ñëpp dañuy digg nit ñi ay liggéey digg yooyu dañuy dugg suñu seen yoon nekkul. parce que yooyu. xëy na xëy na emploi local mën na am. Hmm. pour xëy na gën a yokk euh, euh, liggéey ak yooyu mel noonu. mais kooku ci économie réew mi ak doxalinu réew mi ci au niveau central daanaka mooy gën déterminant en fait ci loolu mais daal liñ la sas na dëkk bi set na dëkk bi leer na dëkk bi ndox yu bon yi am fu ñuy jaar et puis euh, aussi na dëkk bi nekk dëkk boo xam ne daal ku fa ñëw daa fa mën nekk ndax kenn du la agressé kenn du la xaw ma def yu mel noonu ak ak et cetera. te yooyu maître Babacar Seye ak André Guillabert taxawee nañu ko xëy na. ba tax ñu yàgg ndar waaw ak aussi surtout. bu ma nee social bi euh, euh, du sax particulièrement loolu. Mm. social bi mooy. seen digganteeg di jàpp voilà diggante sa digganteeg nit ñi. Mm. maanaam kilifa yi ak ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci politique bi ak ñenn ñu xaw sonn ñi. Mm. nga am foo leen di féete. te xam nga loolu comme euh, maa ngi koy fàttaliku ndeysaan bi may créer mouvement Soppi Ndar di wut dëkk bi et cetera à partir de 2007. loolu laa daan wax ma leen daal eh, yéen nag waa Ndar da ngeen am benn défaut. Mm. Eh, léegi nag dama dafa am tànn boo tànneef boo xam ne foog ma def ko. Mm. soit damay tànn di jël budget maire bi. et eh, di ko séddale nit ñi. Mm. mu dem ci poos yi ak ci biir yi. walla ma def budget boobu ay centre de santé ay ak l'école ay tali ak yu mel noonu defar dëkk bi wala. jéem a dugal ci biiru nit ñi. ak ci féete yenn soxla nit ñi nga xam ne soxla ñëpp. xam nga képp koo gis tey jii mu yore euh, mairie wala yu mel noonu jafe-jafe yooyu la am nit ñi boo jëlul jox leen particulièrement responsable yi dafa bon dafa nangam nangam. te boo mayul doo yàgg. Euh, boo defu nànk ñu daaneel la. finalement surtout jamono yi nga xam ne xëy na booba benn partie moo fi nekkoon muy muy muy UPS après PS mais booba jongante bi gënoon tar ci diggante tendance yi la woon boobu jiitee benn tendance yore maire yi eh, da fexe ba say nit ak ñi nga xam ne kii nga fexe nga xëcc leen eh, bu waxtu wuti carte ak yu mel noonu jotee ñu kii la léegi sax xaw na soppeeku tuuti nga xam nga am na multipartisme et puis nit ñi nit kii donc jafe-jafe boobu képp kuy maire da koy kii maire yi nga xam ne ñoo gënoon social daanaka ñi ëppoon gënoon yàgg ci Ndar daanaka ci ci lañ bokkoon. maître Babacar Seye notamment André Guillabert ak. Euh, Ablaye Diop Chimère Ablaye Diop Chimère et Ousmane Masseck. ak Ousmane Masseck Ousmane aussi était très social. Mm. voilà était était très social mais euh, euh, maanaam boo nekkee maire dafa am ñaari mbir ma da ngay social mais aussi nga am une position boo xam ne ci état bi. day tax da ngay nekk un homme ku ku ku am influence ba nga xam ni daa mën a peser ci gouvernement bi ba nga xam ni yenn projet yu mag yi jëm ci gox yi dana ñëw foofu Ousmane Masseck influence boobu amoon na ko ba nga xam ni ci ci Ndar am na liggéey yu bare yoo xam ni macha allah Ousmane Masseck ci ayam moo ko def yal na ko yàlla yërëm beneen bi mooy tey boo xoolee maire actuel bi Mansour Faye boo amee ay investissement yu ëpp cent milliards ci ndar ci diggante lu matul sept ans juróom-ñaari at kooku budget mairie bi boo ko boolee ba boole budget mairie ndar defe naa ne àggul juróom-ñaari milliards par tontu nga ci laaj bi ma doon baa bëgg a indi mooy tey ndar ban xeetu maire la soxla ndax wax nga la fa daan am démb waaye nee nga itam yëf yi xaw na soppeeku tey ndar ban façon maire la soxla euh, façon maire bi daal mooy ñaar yooyu nga yokk ci benn hmm. ñaar bu njëkk bi mooy maire soxla nañ bu social maanaam pas koo xam ne da ngay jël budget maire bi di ko séddale wala budget bi nga jël euh, li ñuy wax rubrique yi ñuy wax secours aide aux sinistrés fonds de solidarité et cetera nga yokk leen gën leen dëgëral couche yi nga xam ni amuñu kii ak yooyu nga fexe ba social boobu di di àgg ci ñi nga xam ni ñoo ko yeyoo mais pas nga séddale ko politiciens yi boobu mooy bu njëkk bi ñaareel ba nga fexe ba li nga xam ne mooy il priorité dëkk bi nga taxaw ca mais xam ni et koppar yi nga ame ak moyen maire yi ba mënu ko matale nga fexe ba yàlla may la nga am taxawaay ci réew boo xam ni léeg-léeg kat bu xëccoo jotee boo xëccee xëy na dan la topp et kooku nag euh, yàlla def na ko ci maire bi nga xam ne am nañ ko fii Eh, ay la yëwoon donc nga bëgg ko nga ñàkk ko bëgg et eh, eh, li mu jot def ci réalisation ci ndar def naa ni amul benn maire bu ko mos def. moom Mansour Faye waaw dëgg léegi bu ñu ko nattee ci maître Babacar Seye ba ci Makodou Ndiaye mi nga xam ni euh, maa ngi wax sànq ni euh, ñu ngi fàttaliku génn ko àddunaam ci weer wi ñu nekk euh, tey maire bu fa ne lan la fa def ci ci boo ko doon natt tey. non ma yi mu fa def bari na. lool ràññeeku bari na lool maanaam. yoo xam ni xëy na am na lu mu ñëw soppi ko ci ndar. ñu jël sa euh, turu mouvement ba. bon euh, li ci li ci gën a ràññeeku déjà boo jëlee île bi euh, réfection édifice yi xam ne ndar xama koo xam da nga xam ni édifice yu rafet waaye nag yoo xam ne dafa màggat. Mhm. ñu fexe ba ñu defaraat ko. église bi nga xam ni euh, presque mi ngi ci patrimoine mondial de de l'UNESCO église boobu daanaka defaraat nañ ko avec la Fédération de France mu Paris euh, grande mosquée bi bien sûr travaux yi taxaw na waaye door nañ ko ba avancé na boo ñëwee ci île bi tali yi nga xam ni yëpp presque ay suuf la woon léegi goudronné nañ ko ba baax na éclairage public bi macha allah li mucc na ay et am na yeneen réalisation yoo xam ne ci wàllu assainissement nga xam ne da nga daan dem ci quartier fo li ñuy wax euh, Tengi Diène muy faubourg de Sor et béréb yu bare yu daan taa euh, su desee di taa ba léegi aussi taa ta dem daan taa wàññeeku na ndox yu bon yi aussi fexe nañu ba mu am fu muy jaar en fait di di di di di di dem euh, am na yeneen yoo xam ne xëy na ni nga ma kiiwee question bi du ma ko mën a citer beneen bi mooy aussi euh, taxawaay bi mu am ci wàllu euh, nappkat yi ci licence de pêche ñu waroon am ci wàllu aussi nam tudde ci brèche bi nga xam ni moo nekk ci ndar am ay fonds yoo xam ni tey jii def nañu dragage et am na yeneen travaux yu ñu def mais aussi ci xeex avancée de la mer nga xam ni tey ji presque lu toll ci jege trente milliards avec la coopération française euh, ak France euh, liggéey boobu door na pour bañ géej gi wan na euh, langue de barbarie te bu wanee langue de barbarie mu àdd ndar moo ciy topp kon am na yeneen ak yeneen yoo xam ne nag xëy na ci wàllu jeunesse ay maire yu fa jaar xëy na emploi yoo xam ni bon vraiment daal ñu ñi dëkk doom Ndar xëy na dootuñu xale léegi am na ci loo xam ni vraiment boo ko waxalee sa yàlla rek ci ci wàllu bilan eh, bilan moom amul benn maire bu fa jàll boo ko en tout cas man ci li ma xam eh, boo xam ni tey jii mën nga mën nga leen comparer xëy na ki nga ko doon mën comparer mooy Ousmane Masseck Ndiaye hmm. voilà ci ci ñi nga xam daal conscient naa fekke naa loo xam ni yëngal nañ ko foofu kon li nga wax nii ci bilan Mansour Faye la bokk euh, lii Birame Mansour la li may wax Birame Mansour Faye la. d'accord voilà donc euh, li Ousmane Masseck def xam naa ko mais loolu jotuma ci ci àgg mais lii ci Birame Mata li waxuma la lépp. Hmm. voilà waxuma la lépp parce que dama la ko dama ko wax de mémoire nii rek sànni li nga xam ne xëy na moo ci gën a faq sa et puis place bu euh, a Safrula place Bayandar nga xam ni jot nañ ko débaptiser je me souviens boobu nag. xawoon nañ ci sax euh, am ay jàmmaarloo man ñu waxoon ni nañu dindi place bi mais buñ cee am sax nañu dindi euh, turu pont Faidherbe comme que mooy symboliser euh, xaritoo diggante France ak Sénégal ñu tuddee que le pont de l'amitié France Sénégal donc alhamdulilah loolu def nañ ko et place ba boo fa demee tey ji chantier la ña ngi koy defaraat ak am na yeneen place yoo xam ni ak ak yooyu bon ci faubourg de Sor bi aussi tali yi reprendre nañ leen et puis dëkk ba daal euh, gën na set gën na leer et puis aussi gën na am sécurité kooku nag defe naa bon euh, ay woon nañ ko kii et ensuite non seulement liggéey bi maire waroon def mais aussi euh, li mu indi ci projet yoo xam ni fexe na ba xëcc ko mu ñëw ci ci Ndar donc loolu xam nga boo amee genre maire bu mel noonu xam ne am na influence et puis am na liggéey kii beneen ba troisième bi may may ci yokk mooy gën a nekk maire boo xam ni euh, dafay gën a am yëg-yëg ci nit ñi maanaam faale nit ñi safoo leen et wan leen ni leen euh, man maay seen jaam pourtant yenn saa ñu dégg gars yi di ko xarab de ne defu fa daraak euh, xëy na Euh, no def fa dara kooku moom euh, wax am na lu ma la wax léegi te yàlla dimbali na ma bokk ma ci ñi nga xam ni euh, ñeme nañu bañ wax dëgg waaw damay góorgóorlu fu mu toll di moytu wax loo xam ni du dëgg donc lu ma ci wax rek dinaa ko vérifier ba xëy na jéem fexe ku ko jeex aussi daa ko daa ko gis waaye nag li may wax mujj bi mooy faale bi safoo bi mooy un maire citoyen voilà boo xam ni yëg nga nit ñi faale na te boo gisee moom nit ñi xaw ko ŋàññi ci wàll woowu ñi koy wàññi maanaam eh, eh, dafa xaw ñàkk yëg nit ñi hmm. waa ndar liñ koy liñ koy diingate loolu loolu la principalement waaye waaye dée déedéet du ña am na yar hmm. am na yar am na am na teggin waaye nag safoo beeg faale bi dafa des waaw ñàkk yëg laa wax déedéet déedéet ah, yëg yëg na nit ñi hmm. yëg na nit ñi faal na leen xam nga nit ku nekk da nga am tempérament am na lu ma xaw xam xëy na jaxasoo gi ñu bëggoon eh, déedéet du jaxasoo bi sax waaye nag daal eh, xam nga doom daal dafa am nu mu bindoo dafa am nu bindoo dafay bëgg nga maanaam boo ñëwee du sax nga nga nga am foo ko teg wala nangam nangam mais eh, nga faale ko daal safoo ko daal hmm. di ko kawan nag Euh, waaye am na ñoo xam ne xëy na du seen jikko dañoo xaw a euh, timide maanaam li wolof de timide def naa tooy lañ koy wax ci wolof. Mm-hmm. wala réservé. waaw waaw waaw wala ñu xaw jàpp seen bopp. du seen nature. Mm-hmm. voilà xëy na sax ah, ah, loolu liñ ñu li leen di wax nekkul ci ñoom waaye loolu daal dafa nekk loo xam ni xam naa ni dana ci maanaam daal maire bu xaw mel na un peu ku mel na almaami Mataw Fall yéen na ko yàlla yërëm bu nekkoon maire xam nga grand al. xale yu mbedd yi nekk ci mbedd bi sax bu ñu ko gisee daw topp ko. kon ndar booba maire la bëgg. waa ndar waaw waaw maanaam daal maire bi ñu bëgg na xaw am aussi mandarga boobu. Hmm. voilà voilà parce que euh, le premier magistrat maanaam mooy ki jiite dëkk bi waaye comme je dis njiitu jaam la waaye du njiitu sang. Hmm. voilà donc kooku euh, defe naa mooy ñetti dimension yi ma la ci wax rek. maanaam daal maire bi war na nekk ku social. Hmm. war na nekk koo xam ni am na influence. mën na jëli indi ñetteel ba mooy war na nekk ku faale nit ñi ku leen safoo ku leen di nemmeeku ku ku leen di won bés bu nekk man seen jaam la voilà jaam asaf ah, la du ma sax seen jaam waaye seen jaamu soxlo la mm-hmm. voilà seen jaamu soxlo la mm-hmm. alors Ndar tey euh, enjeu élection locale yi ñu dëkkmal noo ko gisee boo ko méngaleeg élection locale yu 2014 yi ñu yi ñu ñu weesu ndax bii yoon dafa mel ni xëccoo gi tar na lool te itam fës na. wala noonu la mës di demee. waaw euh, yi daanaka noonu la mës di demee mais bi yoon sax je crois ragal naa ni demewul noonu lool parce que bi yoon daanaka du sax diggante. ki ñi nekk ci nguur gi ak opposition bi yoon dafa mel na affaire bi ku jëla ci biir ñi bokk ci nguur gi def naa daan mel na ni boobu moo ci gën a tar moo ci gën a fés muy en l'occurrence diggante Mary ñaan ak euh, Mansour Faye donc loolu am na ci def naa sax démb def naa boo jàngee journal yi am na jàngat bu ma ci def ba waneen daal euh, ci li ma xayma daal euh, natt ko ci sama xam-xam ci ndar mais aussi doon ci homme politique ku wut maire bi bokkoon ci élection yi amoon 2014 nekkoon challenger u Ousmane Masseck yal na ko yàlla yërëm ci en 2009 et euh, jàngat boobu def naa ko ci waneen daal eh, xëy na xaw na xumb nii waaye ay lay yëwoon euh, daal ci sama jàngat euh, gisuma Mary Teuw Niane mu mu mu daan Mari ma Mansour Faye ci ci élection yi. Hmm. voilà déedéet. lan moo koy manqué ba du ko mën. Euh, li koy mën mooy daal. Euh, pourtant fësal na programme bu. ambitieux waaw xam nga élection dafa élection locale loo ci wax wax ay élection yoo xam ne ay appareil politique ñoo koy def te moom boo seetee ci ba mu jógee ba léegi. gisuloo ay kàngam yu ànd ak moom yuy génn di wax ci ci ci ci ci turu li mu langue bi mu sos te langue boobu sax daanaka amul à part turam ngay dégg dégguloo mouvement boo xam ni xëy na dafa jóg pour wuti ndar mais benn nit nga gis mu jóg di wuti ndar te nit kooku euh, ñi ko topp nekk ak moom euh, euh, daanaka boo leen dee natt ci wàllu politique ak dayoo ci ci politique ci Ndar daanaka xaw na des. te local loolu la. foog nga àndal waaw élection locale maanaam da ngay am appareil maanaam dangay am kuréel kuréel ba leer distingué wu benn boo amee kuréel boobu ba pare nga am taxawaay ci biir gox yi fi nit ñi nekk nga am maanaam ay relais. ñu nekk ay homme de terrain taxawal la un peu partout ñu leen di yëg ci dëkk bi ci ay proximité yoo xam ne boo demee daanaka day mel na meeting waaye bu fekkee ne bu ñu la gisee proximité mooy ay kilifa nga dem seeti mais kilifa yi boo ñëwee ñu recevoir la wax ak yow mais bon surtout kii mais ci résultat bi da day day day day xaw doy waar mooy ñaareel ba ñaareel ba ñetteel ba euh, mooy booy digganteem ak nguur gi parce que fan yi maa ngi suivre groupe whatsapp yu bare mais ni ñu bare la ñuy wax mooy eh, boo jëlee sa carte nga jox ko marito mooy jox nga ko Mansour Faye mooy jox nga ko Benno Bokk Yaakaar mooy jox nga ko Macky kon nag bu fekkee da nga war tànn diggante li nga xam ni mooy pire ba ak royal ba eh, piir ba ngay jël donc dafa li dafay feeñ ni nit ñi bu fekkee ni ñu ngi ci ñi ànd ak nguur gi dañuy boo deful ndànk sànni seen carte fi nga xam ni yaakaar nañ mooy gañe donc kooku aussi handicap la bu fekkoon ne tey jii euh, mbiram diggante ma nguur gi leer na maanaam mu wane ni euh, seqatuma dara ak nguur gi bokkatuma APR àndatuma ak Macky xëy na dana gën a leer mu ne carrément opposition mais comme que opposition la du opposition loolu xaw na lëndëmal xel yi te surtout ci jeunes yi gis naa ni débat boobu fan yi def surtout ba bi président waxee nag ni am na liste yoo xam daf ko autorisé am politique la damay damay damay damay damay damay jàngat ñetteel ba mooy euh, ci booy xayma quartier yi euh, ga fudul bango xëy na amu fa sens gagné te bango sax wóorul waaw parce que xam nañu nit ñi dafa nekk xam nañ ni mu ni mu demee te xam nga parti au pouvoir léeg-léeg gagné ko ci élection de xawut ci yomb surtout ci dëkk yu mag yi parce que dafa laaj ay moyen yu am solo mais aussi dafa laaj comme ni ma lay wax nga am appareil boo xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy diriger mbir yi mais aussi nga am ay réseau un peu partout mais aussi y a les moyens qui vont qui vont qui vont qui vont ngay wax ni yëpp moo mës a déterminer élection locale ca Ndar mais absolument amul amul amul amul werante ba bi bennoo di gagné boobu boobu mooy exception bi bennoo di gagné booba bennoo xam nga le principe eh, ki ki ci gënoon parti bi ci ëppoon doole moo doon PS. te PS dafa nekkoon ci nguur ba jóge ca am ay réseau tey jii boo ñëwee ci ndar tey jii euh, parti yi fa gën am doole sino ba fa gën am doole sax boo def ndànk PS la. donc euh, li indi bennoo au pouvoir. en tout cas ci élection locale 2009 yi euh, ñooñu dañ et ensuite dañ euh, yi may wax dañ ko vérifié woon parce que dañ nekkoon loo xam ne bokk ñoo ak Ablaye Wade li fi Ablaye Wade yow yëpp dugguñu ci moom ànd ñu ak moom mu leer nañ ñu xam ni ñuy opposition lañu ñaareel ba ñu am appareil ay kàngam yu taxaw mais ñetteel ba PS amul benn parti bu ko gënoon implanté maanaam foo dem da nga leen fay fekk donc dëkk yu mag yi li kay joxe noonu la demee boo gisee même Khalifa Sall di ma amoon fii ci Dakar mooy héritage boobu en fait dafay joué est-ce que tey jii boo ko kiiyee xëy na ki mënoon am loolu à Saint-Louis moo doon Ahmed Fall Baraya mais Ahmed Fall Baraya euh, bi digganteem ak PDS euh, bi ñu tàqali ko eh, daf ko wàññi ci lu bare parce que appareil PDS ci ci Ndar euh, xëy na même bu ko amee du ko am totalement donc kooku aussi ci ñi nga xam ni war nañ leen sóor ci élection yi di ñëw parce que euh, ku nga xam ne xëy na mën nañ ni mën nga gañe langue de barbarie nga xam ne tey jii boo ko jëlee ci électorat muy Guet Ndar muy Sànc ba muy Goxu Mbaaj zone bi ëpp électorat presque ci Ndar daanaka moom la soo ko mënee gagné euh, loo ci teg tuuti boo defu ndànk mën nga gagné voilà le le le grand bassin électoral de Saint-Louis nag muy Pikine foofu Benno du ko xëccoog daanaka kenn boo gañawul get ndaar gañewoo sanc ba gañewoo goxu mbaaj gañewoo pikin mënoo gañe ndaar d'accord est-ce que ce que gis nga li ma li ma ah, laa a ñëw gox yi gën a ràññeeku ci wàllu politique ci ndar euh, mooy gox yooyu mooy gox yi nga xam ni moo ëpp nit moo ëpp électorat nga xam ni képp ku ko gañe ku ci gañe benn sax daanaka eh, ña ña ñay gañe boo gañewul da bokk ci ki nga xam ne yaa topp ci ki gañe voilà te gisuma su ma maa ngi fàttaliku nag bon maa ngi wax nag préciser que yàlla xam na ni awmul benn xaama yàlla suma diggante ak marito suma mag la suma euh, nit ku baax la ku am jàmm ku bëgg ndar ku trigo waaye nag euh, damay analise analyse politique bi daal mooy wax mooy wax yàgg nga ci politique nekkoon nga parti démocratique sénégalais ni nga ko waxee alors euh, élection locale yi itam fitna daf kee tàmbalee xeeñ Euh, est-ce que Ndar ci cosaan wala ci fàttaliku am na euh, situation yu mel nii tey di dessiné wu yu mu dund xëy na élection yu jur fitna yëf yi tàng lool ba xëy na am ñu mu jaaxal. Ndar fitna du fa am dara. moom xanaa 63. Hmm. nga xam xëy na amoon na ay bal yu ñu tiré ma yu mel noonu et puis am ñu jàpp jeex na mais amul sax ku fa faatu. Hmm. Euh, waa Ndar ni ñuy defee politique dafa civilisé boo ci bëggee dugal nit ñi sax duñu duñ ko nangu. ñoom mille 2009 man ku ma waxoon ni danañ ñu gagné du ma ko gëm koo dugg këram dana la biis dana la nangam dana la nangam. <laughs> Euh, danañu toilette ba jekk très ñëw voté si ci jàmm ak salaam et dem seen kër bu résultat bi génne nga xam ne ñii ay vrais citoyens lañu parce que. ñoom seen décision dañ koy mûrir bien avant élection yi di ñëw. justement euh, tradition de vote dafay am ci gox bu ne ñu xam ne par exemple waa Dakar ñoom nii la ñuy voté si critère situation bi boo ko gisee rek da xam ne xëy na fii la ñu féetee wala ñoom naturellement opposition la ñuy àndal wala pouvoir tey ndar seen tradition seen aada cosaan ci wàllu wote euh, lan la. daanaka ba biñ bu ñuy voté doo xam kuy gañ. Ah? danoo mën a làq seen i maanaam waa euh, dañuy sàmm seen vote. dan koy sàmm ci maanaam ñu ñàkk xam fi ñu féete. kenn du ko xam. voilà voilà ñu ci ëpp ci ñoom doo xam fi ñu féete mën nga woote meeting saa boo wootee mu fees. e suma kii de diw suma mbokk la suma nangam nang nga dem fa fekk na décider nga ni kii ngay woteel mais doo ko xam su ñu ñëwee nag ci bureau de vote yi ba booru ay treize heures jàpp quatorze heures xëy na ñun homme politique yi am na nu ñuy faral di espionné urne kii nam tëet yi poubelle yi ak yooyu ñu xool ban couleur moo fa ëpp <laughs> daa mën a xam tendance yi par exemple 2009 coalition soppi ku ñu wax daal di ko mais euh, bi ñu demee ba weer euh, ay ay diggante treize une euh, heure jàpp deux heures si la suñu yenn xale yi ñëw nañu ah affaire bi baaxul de bu ngeen bu ngeen demee ca mbalit ma daal dafa ma dafa zone <laughs> <laughs> ñu xam ni bulletin bulletin coalition soppi moo fa nekk. donc euh, waa Ndar daal nee naa la kuy kuy ragal nit ci élection maanaam ku dul ku ku ku nekk ci Ndar moytul di waat ci élection. moo tax gis nga lii ma lay wax yëpp dama ne la ay analyse la maanaam ay xayma yu ma def la yaakaar ni xëy na lii mooy am. Hmm. ci sama xel mu gàtt. ak ci li nga jot a dund expérience ak mais ak aussi ak suma xel mu gàtt. Hmm. lay am nag moom euh, jafe na nga waat moo tax ku ku jëmul ndànk boo ci waatee rek lakk donc fii lii may kii nii waatuma de dama dama def ay xayma rek ak ay ak ay nisar ne xëy na dama yaakaar ni ci li ma gis nii léegi daal lii la mais comme que doomu Ndar moom et la muy maanaam xam nga dañ leen yar ci sutura yar leen ci kersa mais aussi yar leen ci fulla ak fayda ba nga xam ne ñoom bu ñuy def dara du ñu yëglu comme ñenn ñi. liñ naan du ñu boole dara ak wax. comme di li Senghor di wax waaw ku yoddu saxat hmm. ñoom loolu la ñuy def donc euh, donc ñoom euh, moo mooy seen difficulté. ci mais booy am politique nag di dugg ci génn di kii ak yooyu am na foo xam nag boo fa tollee daa mën natt un peu nit ñi mais mais yombul. yombul mën na nga ñëw ñu maanaam Italie dugal fa milliare yu bare <laughs> boo deful ndànk doo gis dara. voilà euh, donc euh, daal euh, nañ ci def attention. Mhm. démb ak tey bi ba tey ñu des ca ndar maire bi ñëw tey lan la ndar mën a xaar ci moom dëkk ba lan mooy ay jafe-jafeem ban façon maire tey moo fa war a nekk bu ñu ko rek tegee ci xëy na soxlay waa ndar ak itam histoire ndar ndax ku ne xam na ne moo njëkk a nekk capital bu Sénégal kon am na tey xëy na dayoo boo xam ni itam yayoo nag. Hmm. waaw moom kañ foofu daal li ñu xaar mooy fexe ba. nekk mm, jaamu soxla nit ñi mooy mooy di jëkk maire bi fa nekk mu xam loolu mu fexe ba tey ji Ndar boo fa demee e, daanaka da ngay foog ni li ci ëpp léegi yaa ngi yaa ngi Ndakaaru mm. parce que embouteillage gi yëpp léegi bu njëkk amu foofu ne léegi danga koy gis faat partout et rax ci dolli e, mbay mi ni mu développé ci vallée bi ak yooyu na mu fay ñëwee ak euh, li ko wër euh, am na solo beneen bi napp gi am na solo beneen bi mooy pétrole bi ak gaz bi dafa am un renouveau boo xam ne mi ngi am ci dëkk bopp donc préparer Ndar ci pétrole ak gaz euh, surtout sur le plan ci wàllu infrastructure ci wàllu service ak ci wàllu yeneen wàll yi ci wàllu sociale ak emploi yooyu yëpp am na solo pour ki nga xam ne mooy nekk le le futur maire euh, beneen bi mooy ñu gën a yokk cet gi ñu gën a yokk éclairage publique bi mais surtout Ndar dafa amatul suuf waaw donc euh, intercommunalité bi euh, fexe ba Ndar ak Gandon particulièrement ak yeneen communes yi Paal Raw Euh, nam ci ci beneen bi Gandiol et tout ça euh, ñu fexe am ay relations intercommunales bu nga xam ni euh, Ndar dana am ay possibilité d'extension mm. beneen bi ci wàllu santé defe naa ñu ngi koy jëm régler fexe ba Ndar am beneen hôpital bu bu mag a mag parce que kooku lu am solo la fexe ba aussi pour pourquoi pas Ndar am beneen deuxième université parce que euh, ville euh, euh, Gaston Berger daanaka door na effectif yi door na di yokk bu baax alors que université d'excellence la woon donc fexe ba gan Gaston Berger xëy na ñu jëm fexe nañ ko décongestionner defar beneen université et ci wàllu aussi culture dëkku caada la Eh, Ndar nekk un hub culturel maanaam eh, bépp eh, xalaatu bu jëm ci wàllu xel wàllu xarala wàllu caada Ndar nekk ci dëkk boo xam ni dana ràññee ko beneen bi mooy deer bi ci bi ma waroon sa jëkkee mooy wàllu géej gi waaja won na dëkk bi waaw ah, ñu kooku moom priorité mooy priorité priorité yi parce que balaa nga naan naam da nga fay nekk bu ñu mag ñi waxee nii bu jëkk boo daan dem géej da daan jël fas pour àgg géej hmm. mais léegi géej gaa ngi ci biir kër yi lekk na sa yenn kër yi donc kooku def naa ni mooy daanaka priorité ba beneen bi eh, kooku moom suma xalaat la ndar war na am ñaareelu pom hmm. moom dama maa ngi fàttaliku ndeysaan ci en 2009 eh, li mu doon proposé sur les grands projets de Saint-Louis ci la bokkoon un deuxième pont pour Saint-Louis boo xam ne xëy na pikin lay génn lay lay génne euh, dem vers euh, point sud bi nga xam ni dana créer benn espèce de comme ni ko Paris amee ak yeneen dëkk yi parce que benn pont ci benn dëkk euh, même ci wàll sécurité ak stratégie c'est dangereux mm. tey jii boo bëggee bloquer ndar ñëwal bloquer pont Faidherbe jeex na mm-hmm. day am dëkk yoo xam ne it seen particularité mooy la fay génn ci koom-koom ndax ndar tey la muy jur ci koom defar na dëkk ba. macha allah absolument absolument kooku moom amul benn werante parce que mbaa ndar mooy daa dëkk yi nga xam ni mbay ci wàllu xeetam yëpp. tey jii boo fa demee muy fruit muy légume muy daa xam yëpp yi ngay utiliser foofu la jógee ci ndar te njëg yi dafa wàcc ndar mooy xam ni foofu ngay lekkee ceebu jën penn mbay ceebu jën penn mbay li ko waral mooy jën boo xam dafa génn ci géej léegi dugg ci cin léegi beneen bi mooy ci wàllu climat xam nga euh, am na dëkk yoo xam ni am nañ beaucoup de richesse waaye seen environnement climatique atmosphérique ak yooyu euh, maanaam neexutu dund ndax nag dafa neex dund voilà donc am na géej am na dex mais aussi am na surtout ce qu'on maanaam ndax day gilli gilli alizé moo koy def alizé mooy mooy ngelaw loolu nga xam ni boo demee ba booru deux heures jàpp quatre heures dafay jékki-jékki mel na lu mbooy jékki-jékki rek am peex mu mu sedd boo xam ne dafay dafay kii dafay dafay kii dëkk bi am na aussi euh, sur le plan culturel maanaam nit ñi seen type de culture seen éducation ak yooyu euh, am na tolérance toute la foi religieuse nit ñi l'islam ba fa amee kenn xamul kañ la mais mosoo dégg nii eh, catholique ak eh, musulman jote nañ fa amul voilà au contraire dañuy dem lante dañuy bokk sax ci même famille yi église nga fa kii ña nga fa et donc euh, atmosphère tolérance boobu ak yooyu convivialité boobu euh, la joie de vivre am na fa euh, beneen bi aussi dëkku diine la waaw ah, c'est une ville de fois parce que ñoo nekk à la lisière euh, du Sahara donc euh, diine daanaka bunt yi mu njëkk duggee daanaka bunt yooyu la te te dafa des et yenn dérive yëpp ci wàllu fois daanaka amu fa voilà donc euh, et beneen bi aussi mooy parce que léegi monde àddina su bees si ci am léegi mooy àddina bi service moo koy doxal et ndar euh, hub de service aussi la war nekk maanaam service mooy du bare ay surtout service de santé parce que climat bi baax na ak yooyu mm. am na type d'hôpitaux ak infrastructure sanitaire yoo xam boo ko fi defee te jii euh, tubaab yi di dem vers le Maghreb ak yooyu euh, boo deful ndànk ak yenn péril yi fa am ak manque de tolérance bi def naa ne mën nañ ñëw fii au Sénégal surtout que on a des personnels de santé d'une très grande qualification et Saint-Louis am na sax d'ailleurs je crois que tey jii un truc en matière de santé et aussi en matière en matière de santé en matière de spectacle et puis aussi boo ci yokkee le pétrole yokk ci le gaz et defe naa dafay dafay bëgg nag euh, nekk dëkk boo xam ni euh, euh, defe naa wax naa mbay wax naa napp mm-hmm. wax naa les wax naa les services Eh, léegi nag boo ci yokkee l'industrie pétrolière et gazière eh, ak ak li ci li ci laxas yëpp. kon dëkk bu am avenir la. noonu dafa macha allah. mbaa du looloo tax gars yi di daw ku ne bëgg koo jël. no boo boo demee sa tey jii boo gisee habitat bi ni nit ñi dëkkee. ak ni kër gi dëkk bi transformé woon nit ñi di réfectionné kër yi doom dari nekkoon ci diaspora bi ak yooyu yëpp ak ñu fa dëkkul sax dafa ñëw di fa wut kër eh, da ngay xam ne fii enjeu bu rëy lay doon. Hmm. Euh, suupa li ñuy ragal ci élection yi muy fitna tàmbali na feeñ fu mel ni Ziguinchor ak feneen ak feneen ñu ngi koy ragal aussi ci Dakar ndax xëccoo bi xam naa ne mooy doon laaj bu mujj bi euh, lool la ñuy tiit ci élection locale yi kon yow jàppoo ne Ndar dana ca bokk. waaw gëwuma ko sax ci fenn ci Sénégal xam nga fii euh, euh, ab bu ñuy waaj dem ci élection daana gën a tàng. Hmm. ñun ñu am expérience. d'accord am tuuti fekkee. ci élection locale yi weesu. élection locale yi non seulement yi daan ñëw. léeg-léeg daan na fi gën a tàng waaw mais yooyu yëpp nappante la rek euh, kii mais jàmm dana dellu si parce que muy ki nekk opposant bi ki nekk au pouvoir kenn bëggu ci Sénégal tàkk boo gisee nag ñuy def yenn yi xabalante rek boo ko bëggee kii mooy gis nga Barthélémy Dias diggante démb ci suba ak démb ci guddi et fa mu kii xam nga ni am na ne ñoo xam ne sax ñoo ànd ak moom mais wax nañ ko dëgg nee nañ ko nit ñi boo bëggee fii ñu fal la te defe naa ni sama euh, article boobu ma defoon euh, interview boobu wax naa ko ci nee naa Sénégalais bëggul kuy indi ay ak fitna. ma jël naa kaaw Ablaye du ma ne Ablaye Wade dikk gën a tax yéex ñëw si pouvoir bi sax ni ko PS kole woon ni nitu fitna la nitu coono la. et moo waral ba bi muy ñëw pouvoir PDS àggagul vingt cinq pour cent de électorat bi CA 2000 ñëwee ñu ngi woon trente un pour cent. il a fallu après Moustapha Niasse ak Djiboka ak compagnie googu rallier ko pour mu mën a am les cinquante quatre ou cinquante cinq pour cent. Macky Sall li tax ñu fal ko 2012 ba ñëw dee ayoog di xuloo gis nga moom dafa dem campagne yi ni moom daal ci ay carte la bëgg amee réew mi te incha allah dana ko gañ donc defe naa loolu moom. Euh, homme politique sax dañuy xam nañ loolu. ay takk la ci wàllu politique. kon non lu leer la donc dëkk bi alhamdulilah rabbil alamin Eh, yàlla nag moom eh, moo amee dogalam waaye daal am nañu yaa njort bu rafet ci jàmm ak salaam mooy am ci élection locale yi jongante ci biir ay doomu ndey doomu baay lañu biir ay mbokk et bu weesoo Sénégal moo ëpp dëkk yi ñu bokk moo ëpp doole loolu Sénégal gi ñu bokk moo ëpp loolu et defe naa ni ku ci nekk defe naa xam nga loolu et xam nga aussi danger li ñu wër yëpp fu fépp fu ñu wër mi ngi tàkk et Sénégal nag e, ñaanuñu yàlla mu mu bokk ci loolu te defe naa ni bépp sénégalais am na fulla ak fayda ba lu mel noonu xëy na. yaakaar nañ ni du am incha allah. Mm-hmm. ci njortu bu rafet boobu la ñuy tëjee waxtaan wi amoon mbégte lool dalal la euh, sëñ bi su jàlloo doon waxtaanee ndar ak cosaanam ci wàllu politique euh, dayo gi nga xam ne itam am na ko ci démb ba tey euh, muy dëkk bu ràññeeku loo xam ni ëppalee nañu ko yenn gox yu bari ci Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi ci disponibilité bi également. waaw foofu bëgg naa ci yokk gis nga tubaab yi bi ñuy ñëwee dafa am lu ñu fa fekk. Mm-hmm. dañ fa parce que laata tubaab yi ñëw. ndar amoon na kuréel yu xam yu taxaw yoo xam ni ci wàllu diine lislaam di bërëb yi mu njëkk sanc foofa la d'ailleurs boo gisee sax tarixa yu mag yi yu soosu après après ndar euh, daanaka euh, ci ci bërëb yi nga xam ne diine am foon doole fa lañ dem donc historiquement am na loo xam ni da da da koy expliquer moo waral nag bi tubaab bi ñëwee ñu xam ni ñuy nekk moom ba da ngay gis doomu ndar muy ñun ñii ñëpp suñu génération yi koo ci gis lu mu metti metti jàng na alxuraan ba li ci li ci ëpp solo mën na ko tari mën na julli mën na woor mën na maye jabar mën na jullee néew mën na yi def yu nu mel noonu te yàlla xam na ni koo ci gis et eh, ci français fa diplôme gën a kawe am na ko donc dafa am nu ñu nàmpatale loolu moo tax ñu ma dëkk tubaab bi te te mënul jël ci ñun li mu bëggoon jël ñu xam ni mu doon xam ni mu mel mm-hmm. eh, xam li mu bëgg xam li mu bañ mm-hmm. ba mën maslaa nekk ak moom ba mu yow suba bay bañ ak suñu réew mm-hmm. te ñun jotuñu soppi voilà donc euh, defe naa loolu lu am solo la parce que ñun euh, waa Ndar doomu Ndar jaxase woon nañoo ñoom ba ci deret da nga ciy dugg ci ay kër dafa fekk yenn sant yi fekk ay chimère dafa fekk ay pierre dafa fekk ay pôle dafa fekk ay mari di fa fekk ay ay ay rosalie yu kenn xamul mais taxul ñooñu tey jii koo ci gis euh, doon na boppam donc euh, euh, xel moomu nag moom la ñu war am surtout ndaw ndawu léegi parce que nootaange bi gën a rëy du jël balu fetal tiim la mm-hmm. di la def looloo bëggul def mais nootaange bi gën a rëy mooy ci wàllu xel ci wàllu xam-xam surtout mais ci wàllu comportement maanaam ni ngay nekkee ni ngay ni ngay doxale nit bu moomul sa xel bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko la nootul ci xel mënula noot voilà def naa loolu nag ndaw léegi nañu bàyyi loolu xel nit ki ko ëpp doole daf koy xam nit na la ëpp doole waaye du la noot parce que nit tant que nootoo xelam doo ko mën a noot xel moom day feeñ ba ci wàllu moo tax daal fitna jéeg teel teel ji amul solo waaw nañu defar bopp yi nañ defar xel yi nañ defar jikko yi loolu mooy tabax dëkk mooy tabax réew jërëjëf ci kàddu yu rafet yooyu la ñuy tëjee waxtaan wi mbokk yi seen émission démb ak tay la woon ñu doon dalal PCA bu Sonacos jiite tam club Sénégal émergent monsieur Youssou Diallo amoon mbégte lool dalal ko ci démb ak tay bi waxtaanee wàllu élection wàllu politique euh, démb ak tay euh, tànn ci nag ndar ndax dëkk bu ràññeeku bi mu doon ak itam xëccoo gi nga xam ni euh, moo fa am ni mu amee fépp ci Sénégal waaye ndar ràññeeku ci yu bari duñ ko ca dégg te li sabab loolee xëy na mooy li mu fi junj léegi muy wàllu diine gi waaye itam tubaab yi ak nekkin wa ñu nekkoon ak ñoom